asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 13 décembre 2018 ñu ñëw ak yéen yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb la ñuy xëy commencé ko yëglikaay ba moom fa mu xëy génn ci xëtam mu njëkk ñaari doomi géej ja way la xëy wane Balla Gaye 2 Lac de Guiers 2 bu dee ball Gaye la moom yëglikaay bi ab laaj la xëy tey samp di laaj ndax ball ñeenti mbër yi mu bokkal làmb ji di ay nawleem li ñu def ndax dana ko def ndax nag yëglikaay bi dana ëma seen daan na kii nga xam ne nii mooy Balla Gaye 2 ñaari yoon Tapha Tine daan Yékini Senior ñaari yoon Modou Lo daan Gris ñaari yoon B52 Bombardier ki nga xam ne nii mooy Tyson ñaari yoon moo tax yëglikaay bi laaj ndax Balla dina leen juróomeel ndax nag digganteem ak Modou Lo 1-0 la woon yëglikaay bi moo tax mu ne Balla Gaye 2 est-ce que dina dóor dóoraat sunu làmb xëy tey di laaj loolu leneen loo xam ne yëglikaay bi da caa ñëw wala keneen koo xam ne moom dafa dugg wala boog mu nekk ci risque bu méttee métti mooy Lac de Guiers numéro 2 digganteem ak Boy Niang yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey wan ñu ko di wax ne daal Lac fi nekk nii ah la mu dugg saf na sap yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey dinu ko wax moo tax nag Mohamed Ali jàpp na ne moom dey loo ci mën a dégg moom Lac de Guiers numéro 2 vainqueur lay doone rek bu buñ ca yeggee Burxaan Wàdd moom gëmut loola ndax moom itam jàpp na ne daal mbërëm ah jaab jaab ne daal mbërëm mooy doori càppaa culi gi bés buñ ca yeggee ippo ngaar yi nag moom mu nga leen di yedd wala mu yedd seen ñaari mbër ne leen daal li ñu xam mooy fexe leen ba lii moom ay calcul bal cee am bu ngeen ñëwee ca bés ba daal defante leen bëre bu baax a baax mu mel ni waa Pikine moom loola ñu ngay waajal seen mbër yëglikaay bi sunu làmba nu ko wax ne na dimanche ji nu génne day wala boog ñoom daal fi nekk nii ñu ngay mobiliser wu bu baax a baax di waajal booy ñang ci bis bi nga xam ne nii ca la jëm war a jàkkaarloo ak Lac de Guiers numéro 2 keneen moom ku bëgg a jàkkaarloog rek ki Balla Gaye mooy ama neex bu lebu gi ama neex daal ne na fi mu nekk nii moom dafa pare taxaw tem ngir Sa Thiès ñëw mu defante ak moom sunu làmb xëy tey dalal ko mu seq ak moom waxtaan wu yaatoo yaatu nee nag diggante ma guy gi ama neex nee na daan naa guy gi ñaari yoon fële nga xam ne mooy ca réewum états ama neex ay wax mu mel ni fi mu nekk nii yemut ca Sa Thiès Yékini Junior Papa Sow ak Modou Anta ñëpp ama neex daal jàpp na ne war na mën a defante ak ñoom sunu làmb xëy tey wax nu ko ñi doon waajab defante moom ba ñu jàppoon ko yëglikaay bi di sunu làmb nee na toxal nañ ko muy tonneer ak tiijan Faye sunu làmb nee na nag nekkatul le treize janvier waaye léegi la vingt janvier la ñu koy def sunu làmb xëy tey wax nu ko noiro moom daa xëy di laaj dafa leer ak infra rouge yëglikaay bi wax ñu ko démb nag déggoon ngeen fi coowal Balla Gaye numéro 2 ak papaam ci ba mu ñëwee ba tey gisuma ko ak gis naa ko mu mel ni nag coow la guddul wala boog yemale nañ ko fa sunu làmb wan nañu Balla Gaye numéro 2 ca kër papam Double Less ñoom ñaar ñu joxante ay loxo nuyoonte bàyyi waxtaan mu mel ni loolu suñu làmb xëy tey wax nu ko la tribune moom booy Niang la nu xëy wan yëglikaay bi nee na li leer ba leer de booy Niang 2 fi muy jaar ba war a piécé jato waalo bi yëglikaay bi loolu la xëy laaj di la tribune loo ci mën a dégg daal jàppal combat yi moom nar naa métti nar naa tar nar naa yëngu it nag ay sato waaye li ma la waxoon démb rek diggante baay na doon lu rafet wax ja guddul yemale nañ ko fa diggante lees ak bàlla joxantey loxo waxtaan bay ree ay satu jàmm gënu ay salaamaaleykum mbokki seetaan Leewtoo TV yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax ci jeudi bi di leen andil tey tamit seen revue de l'arène ak Babacar Babacar ñu leen la bu baax di la jëfal si revue de presse bi. Aïssatou maa ngi lay fay di nuyu képp kuy suivre Leewtoo TV à travers le monde comme ni nga ko waxee nag ah, ñu ñëw ci jàngatu revue de l'arène bi waaw. waaw Babacar revue de l'arène dañ koy commencer ak li nga xam ne ni moo nekk à la une sunu lamb tey muy Balla gay 2 Balla Gaye euh, sunu lamb tey dafa ñëw samp laaj daal ne est-ce que Balla dina réussir dóor dóoraat mooy li fi mbëri def daan sa adversaire ñaari yoon est-ce que Balla ci kanamu Modou Lo dina mën a réussir comme ay nawleem mu nag laaj bu am solo. waaw boo xoolee Eumeu Sène da koo def euh, Tapha def ko Modou Lo def ko ak Bombardier yëglekaay bi ne ndax Balla dina ko mën a def ah, dama naan Balla mooy gën a mën a placé wu pour tontu ci parce que li tax moom moom mooy bëri ji ak Modou Lo moom nag loolu la bëgg te jàpp na ne 2-0 lay def. yaa ngi dégg kon defe naa ne te it jàpp naa ne mu ngi ci lu koy may mu def 2-0 ndax mbër moom boo jëlee avance di entraîner di waajal ànd ak sa staff yaakaar naa yaa ngi ci yoon wi lay may ndam est-ce que nag kam ko séqali na nga mu 2-0 am yaakaaruma ko parce moom itam mu nga ca la mu war a ne muy Modou Lo moo tax ba nga xam ne nag loolu moom li ñu mën a xam daal mooy nañu yónni yàgg le treize la ñu wax combat bi yàlla nañu ko fekke te tal ko def wala Modou Lo day bañ loolu am 1 waaye loo ci mën a daal le treize moom yàlla tal ko ci la lépp di leer waaw Amine yàlla nañ ko fekkee te tal ko mais Babacar nañu des ba tey ak ki nga xam ne mooy euh, Balla Gaye 2 démb coow amoon na fi digganteem ak papaam ñu ne papaam ne gisu ko dégg ko bi mu ñibbisee ba léegi mais coow li fay na parce que Babacar Balla dem na seeti papaam waxtaan ak moom saafanteeg moom gis nañ foto bi ci suñu la mu mel ni daal ni nga waxoon diggante doom ak papa wal doom ak waajur ci boppam dana jarul wax ji dis bëri dafa xat dafa xat waaw te tamit xam nga euh, man dama naan am na foo xam ne la ma la waxoon rek am na diggante boo xam ne di ca dugg moom des dafa jaar di xoolaat diggante jur ak doomam diggante ñaari ñu bëggante tey ca da caa baax ñaari xarit tamit yu xaritoo te muy dëgg ci ñoom tey ca da caa baax diggante nag ay nit mu ñu ñuy dund dee fois tax xëy na yëngu-yëngu mën na am mais loo ci mën a dégg bu ñu waxtaanee jubóo Balla Gaye de def na li ko war pour man li ko war mooy dem na kër waajuram waxtaan nañu ndax man seetaan naa vidéo bi muy loo xam ne ni tamit liñ du ñu mën a def lu dul rafetlu ko ndax li tax ñu koy rafetlu mooy man dama naan su ma sañu nit ku nekk nga war a àndal nga ànd ak moom moo xam sa waajur la moo xam sa xarit la moo xam kuy bëgganteel la parce que loolu mooy li neex suñu borom maanaam nit ñi te yàlla tax ku ci ne waajur wi xam ne doom ji moo ko jur éduqué ko yërëm ko doom ji itam déggal jur wi xam ne moom mooy kilifaam loolu moo am bu ko defee lépp rafet parce que daal lu baax a gën lu bon lu rafet gën lu ñaaw ay satu Babacar ñuy jógee ci Balla Gaye 2 dem si beneen doomu Géejawaay muy Lac de Guiers Lac nga xam ne moo war a bëreek euh, Boy Niang journal di laaj ndax Lac de Guiers jëlu risque bu mag ci combat bi parce que objectif am warul nekk leneen lu dul daan Boy Niang mais tamit du xam naa du lu yomb parce que waa Pikine tam ñu ngi ci seen euh, wàccaay def nañ réunion dimanche suñu lamb tam ñëw na décortiquer ñu li amoon ca réunion dimanche ba. waaw mu mel ni kon jàppal ne Lac de Guiers 2 yëglikaay bi dafa jàpp ne moom dugg na. ci loo xam ne risque la làmb nag li may wax àddina sa dama naan lépp ay risque la parce que tamit <laughs> moom comme andi wuñ fi andi fi suñu bopp nekk gi ñu fi nekk tamit du ñoo fi bàyyi suñu bopp kon saa yu nu xëy rek ñu ngi ci ay risque làmb combat nag la jël moom lag de Guiers numéro 2 bu ñëwee ci cadre sport bi mook Boy Niang li tax nag xëy na bu ñu ko waxee ci làmb muy risque wala moom ñëwoon ko ko tuddee mooy que ni ki mu jël xale la xale la bu ne ci lancé te dafa dugg fa mu dëkk muy géejawaay daan fa juróom benn mbër sans compter ñi mu ne ba daan na leen ba pat war a nekk kii ki war a nekk septième personne bi mu fay bëreel ñu ñuy xool nag ndax Lac de Guiers 2 loolu mu jël est-ce que du risque wala risque la li tax buñ ko mënee tudd risque mooy ah moom fi mu nekk nii lu mu mën a def pour fere ne Boy Niang mooy li koy lii gën ci moom gën ci géejawaay waaye itam loolu ndax dina yomb duma ko foog ndax Boy Niang xale la am na encadrement Lac de Guiers 2 nag dama naan la mbër mi gën a jafee bëreel Sénégal mooy Lac de Guiers numéro lool moom booy Niang na ci bàyyi xel mook estafam leen li ci des waa ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy waa Pikine dimanche passé def nañ seen waxtaan di waajal seen mbër mu mel ni kon jàppal ne daal loolu leen promoteur bi jox muy combat wala mu jox ko seen mbër ñor na leen bu baax a baax ñu ngi ciy pare ñu ñaan yàlla rek yegg ca bés baak dañuy dem si manager yi ki nga xam ne mooy euh, Mouhamed Ali yor euh, la de Père Bourkhane Wade moom it mu yor euh, Boy Niang ñoom ñëw nañ ci combat bi wax nañ ci ki nga xam ne moo yor Boy Niang nee na Boy Niang bu jour ba dina joxe li nga xam ne moom la am te mu gën ci moom dina wane boppam ba mu jeex tàkk ki nga xam ne mooy euh, Père Ali moom it nee nañu ci jour ba moom mbërëm gisul lu dul ndam ndam la ciy jëlee mais ki nga xam ne mooy Ipongaari di micro central tamit intervenir na nee na lu mu leen wax rek mooy bu jour ba na calcul wàññeeku amul taxaw ci géew ga ku nekk di calculer jëmale suba. waaw waaw loolu moom suñu suñu tonton ak suñu père Mohamed Ali tamit di leen nuyu ñooy ñaari menaces yi mbër yi boo déggee Mohamed Ali moom li mu gis wala li mu jàpp mooy ndam Burxaan itam ne ku raj jëmale nga xam ne ñoom ku ci ne li ngay def da koy calcul booy ñag nag des fois am ay difficulté ci mbër taxaw di ko déglu boo xoolee bi ko am neex di daan wala même bi ko sos di daan sax boo xoolee lool moo ko ko yóbbee par rapport mbër mi li ñu gis ci ay combat mu gën a gaaw li euh, maanaam euh, ndam yi gën a gaaw ci moom muy mbër moo xam ne dafa jóg di ko attaqué lag nag nee na da koy attaqué ji waaye xamuñu ndax loola waxu plateau la wala ndax moom lay appliqué ca làmb ja kon jàppal ne daal combat boobu li ma la waxoon sànq rek combat la boo xam ne daal ah, waaw combat man daal calcul gis naa ko ci moom du ci ñàkk booy ñang nag xalaat naa ne moom itam ci ni ma ko gisee jàpp naa dina gaawal combat il faut que mu ci rythme man pour man. waaw Babacar la tribune sax loolu la ñu xamal parce que nee na ñëw na ci nga xam ne noonu la Boy Niang nar a doxalee tey jii ba piégé ki nga xam ne mooy Lac de Guiers waaw la tribune loolu la koy wax naka la war a doxalee pour piéger ko loolu nag. moom moo koy encadrement am ak moom mbër mi defe naa dinañ ci liggéey parce que ñoom ñi jàng adversaire bi ba jël avance am war nañoo xam ñoom nan la ñu war a mën a jaare pour piéger ko waaye dama la ma la waxoon rek du yomb Lac de Guiers 2 du yomb ndax boo xoolee fi mu jaar ak mbër yi mu bëreel ah nga xam ne neexu la pièce neexu la pièce man dama naan benn combat la ma sa gis ñu pièce ko ci mu dugg ca te ba mu duggee ca fiir ga kere dafa daanu mooy diggante ak Eumeu ko sa ah kere fab tànk ba foogu ko Eumeu jël ko ko yaa ngi te booba itam sax gis nga jël ba na mu demee waaye loo ci mën a dégg rek jàppal ne du mbër mu neex a piège booy ñang itam jàppal ne mbër la moo xam ne nii man de dama naan tey ah ñi mu maasel ci lamb gën ko ci dàq ko ci bëri wala nga dàq ko ci xeex wala nga gën ko ci xam yan sement lay bëree bëriwul xale la boo xam ne daal fi mu tege bu ci wàccul mën na am lu ne si làmb ki ko séqal nag li muy def moom du ko sorxo sorxo waaw loolu moom combat bu technique daal la Baye Ndiaye tëgg soo bëggee dégg dëgg waaw Balla kii Babacar dañuy dem si beneen combat bi nga xam ne tëgg nañ ko fi muy Tidiane Faye ak euh, Tonnerre kii nga xam ne mooy soo production daf ko jàppoon euh, lii lii di le 13 janvier léegi fu mu toll nii reporté na ko parce que le 13 tamit annoncé nañ si combat bu mag a mag Balla Gaye Modou Lô bu kenn mënul bokk ak bés Balla Gaye Modou Lô mu préféré léegi yóbbu ko le 20 janvier comme ça mu la ñu xëy jàng ci yëglikaay waaw li am solo nag mooy olof nee na su junne bëggee ku yëg daanu suuru 13 janvier moom wax dëgg yàlla ci la Balla Gaye dëgg ak Modou Lô war a bëree ak seen revanche bis boobu moom yaakaar naa ne bët yi du du ñu tourné fenn à travers waxuma sax Sénégal mais monde bi lu dul ci Balla Gaye dëgg Modou Lô loolu la ñuy xaar kon defe naa bés boobu moom ku ci neewoon promoteur jàpp ci itam la nga def mooy bàyyi ñoom nag jël nañ Tidiane Faye ak nga xam ne nii mooy Tonnerre yóbbu ko le 20 janvier ñu leen di ñaanal rek yaakaar naa lamb ca Linguère la war a amee nekk na lamb joo xam neex la ndax Tidiane Faye champion la Tonnerre noonu ku ci ne nag ci ay defet nga tëdd ñu xool ñoom ñaar fu ñuy jaar ba génn waaye nag la tax ñu dàq ko moom raison la parce nag Balla Gaye numéro 2 ah ñëpp moom la ñuy bëgg xool yi Babacar ñëpp moom la ñu bëgg xool mooy ku nekk da ngay xool li nga xam ne nii moo lay arrangé rek nga def ko léegi dañuy dem ci nga xam ne mooy euh, Amaneex Amaneex fu mu toll nii kàddoo moom changé wul parce que waxoon na ko Leewtoo nee na bëtam yi daal teg ko ci kenn ku si doomu Double Less boobu di Sa te moom jugu ca. waaw moom daal loolu la wax moom daal nee na Sa sax nag euh, mu ngay xalaat ñeneen ñu ñu mu ca war a yokk mu yëg ni si ñoom rek Papa Sow ak Modou Anta waaye daal leen li wu yaatoo yaatoo moom ama neex waaw mu mel ni ki mu nekk nii dama naan promoteur tamit jot nañu jox ko combat ndax nag daaw dafa daan booy bawal jëlli bu gaaw gaaw gaaw te daan na fi ci champion yi la bokk. Mhm. Babacar tey lii lañ andiloon ne ñooy mbokk yu suivre Leewtoo TV lii lañ ci jàngat bi da leen jox rendez-vous suba incha allah mais balaa boobu dañuy gërëm Talla Ndiaye mi nga xam ne moo yor caméra bi di gërëm Babacar Mbuub ci montage bi di gërëm euh, madame Kane MK Travel ñoom Benzema ñoom Nonga Fall ñoom Amar Gueye ñoom Mado ñoom Soukayna di nuyu ñoom ami amika sama njëkke boobu noonu di nuyu sama borom kër di nuyu ñëpp di nuyu sama yaay di nuyu àdduna bi yëpp Babacar. waaw di nuyu ñëpp comme ni nga waxee boole séeri lébu ah voilà comme Babacar laay moom tamit nee na ma séeri waaw sax moom séeri Marème ah Babacar infographe ak suñu naar bale ci côté bi Ndey Kumba Fall assistante ah ñu koy nuyu di nuyu fleur di nuyu képp koo xam ne nii daal yaa ngi léewtoo di nuyu tamit ñi ñuy suivre xam nga Moussa Sow maa ngi lay nuyu di nuyu ñoom Seydou Traoré taalibi Serigne Mbaye si Abdou Moudou Gueye tamit taalibi Serigne Mbaye si Abdou maa ngi koy nuyu di nuyu ku nga xam ne ni tamit moom mooy sama yaay soxna Anna Cheikh Bintou Fall ak Moudou Samb bu maam Mbaye laay maam tamit moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu daal ñëpp ñu ñi nga xam ne ni ñu ngi ñuy suivre à travers le monde baara borom café gi saldawant maa ngi lay nuyu di nuyu tamit ñi nga xam ne ni muy jili tarkindaa si la di nuyu sita Bamba Touba nuyu naa gaay yëpp ñëpp di nuyu daal fépp fu waay mën a ne moom jàppal ne Babacar a ngi lay nuyu tuuti yaay Sarr du ko fàtte di ñaan Sénégal yal na fi jàmm sax te yàgg fi. waaw Babacar ñi jox di daje ba suba ak jàmm incha allah. Basoka. Basoka tamit maa ngi koy nuyu moom daf ñuy suivre mu ngi Caroline du Nord États-Unis waaw moom ndeysaan daf ñuy suivre tout le temps mook mbër bu ñuy wax Balla Gaye benn Balla Gaye la nekkoon école de lutte Lansar léegi mu ngi nekk Espagne non Italie du moins moom tam maa ngi bu baax baax a baax di nuyu ñëpp rek Benzema tout le monde nuyu nañ leen mbokk yi ba suba ak jaam incha allah.